ñoom ci ganit wax nañ leen ko ci ndorteelu xibaar yi Mamadou Kassé journaliste jàngalekat euh, ca CESTI nekkoon na fi rédacteur en chef yéenekaay bi di Soleil monsieur Kassé maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay soxna Ngoné. Sénégal Ouganda démb kon euh, gaa ñëpp niñ ko xoolee yow te suivre nga match bi euh, sa njàngat lu mujj noo gisee gaynde yi. waaw dëgg la suivre naa ko jàngat naa ko gis naa li xale yi def mais yaakaar naa ne match bi ci boppam. Euh, bëri na ay difficulté bëri na ay problème ndax euh, xëy na ni mu tëddee la ndax Sénégal ngi door a ñëw bi mu jógee kaan bi bugg a wane ne la ko daloon ci kaan bi xëy na incident de parcours la Ouganda ñëw wane boppam dëggal boppam taxaw ci kaam ne kenn du ko jàll li ci am nag mooy sénégal yi euh, bi ñu engagé match bi dañ ko engagé yaakaar ne mun nañ football ni Ougandais yi di footballé te match boo koy yoree nekk sa dëkk da ngay am fooy ci jaar dafay am looy liggéey d'abord ci préparation bi ndax kenn mais sa Ouganda mi taxaw yombal yombal na mbir yi parce que Cheikh Ndoye mi ngi koy wax fi senegal instant yi ñu bari bu ñu joué moom dañuy taxaw donc. Euh, waaw waaw ndax équipe yi taxaw moom bëri nañ ndax Cameroun dafa taxawoon ca kaan ba moo war ñu éliminer ñu kon nag bu loolu amee ci Cameroun ñu ñëw gis ko ci uganda war nañ xam nan la ñuy def. xëj na loolu nag solution boobu moom la ñu amagul xëj na ñu ngi koy wër ñu ngi koy ut mais amaguñ ko ndax équipe bu dëggalee boppam nekk ci surface am taxaw yow am na nooy def organiser ce jeu ba nga xam ne di nga am ay infiltration ci biir dugg ci biir infiltration yi jot nañ ci am ñaari kii yoo xam ne mm, dañ ko dañ ko dëgg la am na ci mais dañ ko raté raté nag moom ci ci football la bokk mais nag li ci ëpp solo dëgg dëgg dëgg mooy boo doonee professionnel équipe professionnelle janoog équipe euh, boo xam ne dañ naan ay amateur lañ war nga ko won sa bopp won ko sa doolee ba mu xam ne ñi muy ñi mu ñu janoog moom. du ñu ay coono ci taxawaay bi démb critique yi après bari na mais est-ce qu'il y a des raisons de s'alarmer est-ce que ñu wax ni xëy na choix entraîneur bi la parce que gis nañ ñu bees ñu bare ñu dugg si xëy na ñooñu la bëggoon euh, testé moom moo moo indi résultat bi. waaw dëgg la euh, ñu équipe bi dañ ko changé te nag boo changé fu am change fu amee changement rek day am déstabilisation maanaam équipe bi nit ñi dañuy seetaat seen bopp. loolu nag am na ci am na sax leneen ndax terrain bi ci boppam fi ñu footballé am na condition de jeu yoo xam ne du ko favoriser yaakaar naa fii ak euh, match bi ñuy am contre euh, Guinée euh, équatoriale dinañ mun a defaraat terrain ba nga xam ne xale yi dinañ ci mun a jouer normalement mais li am ba li am daal li wér mooy équipe bi taxawgul compartiment de jeu yëpp. amagul li ñu bëgg bloc d'équipe bi nga xam ne mooy war di yéeg pour accompagner l'attaque ba nga xam ne bu ñu sëppoo équipe dinañ xam fu ñuy jaar pour dugal ko amagul. Mhm. kon nag yooyu dafa doon condition de jeu yoo xam ne dañ koy préparer buñ ko préparé wul nag ci entrainement mbaa ci li ñuy wax euh, laboratoire maanaam ci ci ay ci salle de de de préparation duñu ko mën a appliquer ci terrain bi. donc il faut. nécessairement préparation boobu moo des dañu ñëw boole xale yi ak euh, yeneen professionnels yi rek euh, boole boobu moom moo. la ñu togg carrément yaakaar naa ba tey des na ndax préparation équipe nationale du organiser seen football ci terrain bi mooy nan nga leen di fexe ba waxtaan ak ñoom ba nga xam ne tey buñ duggee ci terrain bi rek dinañ xam ni ñuy def ndax ñooñu pare nañ professionnel moom pare na li ci des mooy da nga koy fexe ba nga xam ne boo ko préparer en dehors du terrain. maanaam bu ngeen duggee ci salle ba ngeen waxtaan ak ñoom nga wax leen fi ñuy jaar bu ñu duggee rek dañ fay jaar. mais est-ce que du firndeel xëy na li nga naan équipe mais xëy na tollooguñu carrément ci am benn équipe boobu. xëy na ñu ci sélection beeg ci ci tànneef bi ba tey. mais justement loolu nag mooy équipe xam nga équipe dañ naan tubaab daf ne une équipe c'est un c'est une école de haute maîtrise du savoir-faire collectif. maanaam ñëpp dañuy xam li ñuy def ku nekk da ngay xam li nga def ñu boole li ñuy def muy savoir faire collectif maanaam ñu boole ànd mun a gañe mais loolu bu amagul parce que temps de jeu bi ñu war a am ci seen diggante amagul mbaa temps de préparation amagul dañuy jéem a seet nan la ñuy def pour que dugal ñi nga xam ne wóor na leen conditions yi ñu leen di laaj. dinañ ko mun a remplir. mais est-ce que waruñu woon dépassé xëy na toog encore ci di di di wër ak nañ ko waxee conditions yooyu togg boobu euh, collectif bi euh, parce que tam euh, jongante yi du xaar ku ci nekk yaa ngi xool noo gën a doolelee sa bopp noo gën a dëggalee sa bopp est-ce que dañuy da ngay d'accord ci ñuy wax ne xëy na ba tey problème mu coaching am na wala jafe-jafe bi nekkul à ce niveau. disons man du ma wax problème coaching problème de préparation de préparation dafa doon dafa am domaine yu bëri yu mu ëmb préparation psychologique préparation de la connaissance de l'environnement maanaam fi ngay football connaisse préparation ci terrain de jeu bi fi ñuy football yooyu yëpp dafa am. xëy na lool tamit ci coaching moo koy moo koy koy def xëy na loolu yëpp ci coaching bi la mais li ci ëpp solo mooy démb mun nañ sax bañ a invoquer problème de coach coaching ndax euh, éléments yi mu am ñu bees lañ. Mm-hmm. ñu muy door a dugal. war leen organiser mais préparation bi ci war bi nga xam ni moom la war a def ak ñoom foofu la problème bi lan la waroon def ak xëy na xale yi boole leen ak professionnels yi nekkoon ci biir terrain bi pour am résultat concrétiser xëy na action yooyu. xale yi waxtaan ak ñoom xam nga lu ëpp solo ci football du entraînement bi ngay def ci terrain bi li ëpp solo mooy waxtaan bi ngeen di def en dehors du terrain. te kooku ci la ñuy préparer équipe mu am ay astuces muy am stratégie. muy xam nan lay nan lay jouer ndax coup am na nu ñu koy dóore corner am na nu ñu koy dóore yeneen ak yeneen am na nu ñu koy def ci terrain ba nga xam ni di nga bett équipe bi mais bu bu buggee ñëw rek jouer comme beneen équipe bi ne ñii dañu dëggal seen bopp taxaw janoog man mhm. man tamit dinaa foncer ci ñoom doo du doo doo jàll équipe dafa am noo koy noo koy noo koy préparer préparation boobu tamit loolu laa yaakaar ne am na lu des. est-ce que du laaj ñuy gën a jouer ensemble xëy na pour euh, gën a yokk complicité bi ku nekk xam sa morom fan la mënee. action yi mën a gaaw tout à fait il faut ñuy jouer ensemble. il faut ñuy xam équipe bi ñuy taseel. jouer ensemble mooy ñu familiariser wu ku ci nekk boo yoree bale dinañ sa moroom dina xam fan nga koy joxe ak fan ngay jaar loolu dafa am solo ndax ni équipe boo gis loolu mooy force am mooy personnalité mooy identité am bu ñu nee Barça xam nañ fi ñuy ni ñuy def bu ñu nee Real Madrid xam nañ fi ñuy def. Mm. bu ñu nee Sénégal tamit war nañ am ay atu yoo xam ne dañ naan ah. ñaa ngi naan ñu xam équipe bi ñuy dajeel mais xëy na Ouganda du du gan yàgg nañ ko suivre nañ mën a xam xëy na fan la ñuy taxawee seen faille ak seen seen seen force un peu sur le terrain. waaw dëgg la d'autant que sax Ouganda dafa ñëw jouer comme ni Cameroun jouer keroog kon ñu xam ne équipe bi ñuy dajeel même comportement que Cameroun lay def kon nag ñu seet léegi nan la ñuy def pour jéggi loolu. on n'a pas su tirer les suñu jàkkaarloo ak Cameroun. xëy na différence ci. loolu loolu ci loolu laa ragal. que est-ce que tiré nañ leçon yi ñu amoon contre Cameroun ndax leçon yooyu contre Cameroun moo ñuy arriver waat ci yeneen match moo tax il faut ñu préparer équipe bi ba nga xam ne tey dina xam nan lay contourner situation yu mel noonu. bu amee am na ay euh, comment lu ñuy wax fait de jeu ci match boo xam ne bu ko équipe bi amee. bu gagné dañ naan mais équipe bi pourtant mënu ko woon. Mhm. mais pourtant gagné na mais li ko li tax mu gagné day am corner ndax ñii dugal ko mbaa mu am penalty mbaa mu am coup def ñii dugal ko mbaa mu am benn phase de jeu boo xam ne dañ ko préparer déjà en laboratoire dañuy ñëw dugal ko rek daal di toog. mais est-ce que xëy na yenn absence yi euh, Sadio Mané euh, ñoom euh, Diao Baldé Moussa Sow non partant est-ce du loolu xëy na tam moo feeñ ci terrain bi. wala xale yi fa nekk war nañoo mën a indi tam seen seen lu bees. dëgg la dëgg la mais xam nga équipe moom dafa doon collectif élément bu manqué warul tax collectif bi yàqu ndax bu ñu nee équipe rek maanaam complémentarité la dañu war a ànd mun a réaliser résultat loolu mooy équipe. Sadio Mané Diao Baldé am na lu ñu daan def ci équipe bi ñoom am nañ seen façon de jeu ni ñuy jouer ñeneen ñi tamit ku ci nekk am nga say qualité am nga say aptitude ku ci nekk nag sa qualité sa aptitude da nga ko war mu mun a wone ci équipe nationale. donc bu Sadio Mané nekkul bu fi nekkul Diao euh, Baldé nekkuñ fi ñeneen ñi ñu jël war nañ mun jël ci base bi ñu leen jëlee. bu fekkee ne. entraîneur bi moo ko war a lijjanti xam ne xëy na kii nekk fi su tegee kii fii. Euh, teg fële kee ci beneen poste bi affaire bi dina war a mën a dox. très bien loolu nag entraîneur bi moo koy xam ndax buy dem bay recruter joueur war na xam jour bi lan la ko war a indil à partir de ce ci lay xam équipe bi muy teg nan la war a jouer ndax équipe boo koy footballoo da nga koy footballoo en fonction compétence su joueur yi nga am. Mhm. yooyu bu fekkee ne joueur yooyu amuñ compétence yooyu dafay métti pour ñu def ko. ndax mënuñ ci benn match ñu def loo xam ne mësuñu leen ko defloo kon nag yaakaar naa fi mu nekk nii dañu war a xool collectif bi joueurs yi ban complémentarité la ñu am. Mm-hmm. ensuite ñu xool. équipe bi nan la war a mun a jouer contre un adversaire qui se regroupe maanaam kii toog ci kanam. Mhm. nan la war a jouer ak moom. mais mais ci ci kanamu loolu yëpp euh, suñ diggante ak Guinée équatoriale parce que problème yi nga soulevé bari na nan la ñu war a euh, aborder match boobu quand pour xëy na am résultat bu bu wuute ak euh, li nga xamante ni moom lañ jëlee ci kanamu Ouganda. waaw Guinée équatoriale dafa doon équipe bu jafee footballeur ndax ñun yàgg nañ tase moom gis nañ ne neexuñu footballeur ndax toujours dañuy bett ci yu bëri. kon nag tey bu ñuy football ak ñoom dañ leen war a nax problème bi yëpp noonu la football moom naxaate la rek naxante la boo ko xamul nan ngay nax fan ngay jaar pour nax ko doo jàll. Mm-hmm. li tax équipe maghrébine yi doon ñu gañee mooy dañ ñu daan nax dañuy ñëw ñun ñu dominer match bi pendant quatre-vingt-neuf minutes quatre-vingt-dixième ñu am benn occasion dugal ko ndax football noonu la demee ci fait de jeu la football moderne léegi du match yoo xam ne da nga koy dominer totalement. da ngay am am say feem am say feem yoo xam ne danga koy waaj dangay waajal équipe bi naan ñii ñii lañ def nii lañ mel nii lañ mel fii laay jaar te bu boobaa boo fa jaaree di nga am dara. mais bu fekkee xëy na absent yi ñoom dañuy confirmer bañ a teew xëy na euh, suñu digg ak euh, Guinée équatoriale euh, lan ngay digal tey ji Aliou ci ci ci wàllu xëy na ñu mu war a teg ci terrain bi pour corriger yenn erreur yu ñu yu ñu nemmeeku si si si match démb bi. alors li ma koy digal daal mooy. am na benn atu xale yi bugg nañ football am nañu engagement démb li ma gis am na engagement am na détermination am na volonté de bien fair mais organisation bi tax ñu mun a concrétiser occasion yi loolu moo amagul te loolu li ma koy digal mooy la muy def ci terrain bi dëgg la ndax entraînement moom ci la bokk mais ñi mu jël ay professionnels lañ jóge ci ci ci championnat yu métti ñëw soxlaatuñu ñuy def yenn préparation ci terrain na waxtaan ak ñoom won leen fi ñuy jaar won leen astuce yi ñu mun a utiliser par exemple pour gagner mhm. mais par exemple coup franc jël nañ jël coup franc coup franc yi gis nañ niñ ko tiré benn doxu ci mais boo tiré benn yoon doxewul nii da ngay xool beneen fin booy jaar pour am bal bi fu mu jaar mhm. corner yi gis nañ ni ñu dem centre yi gis nañ ni ñu koy def bu ñuy centré war na am koo xam ne xëj na pivot la li ñu naan pivot un attaquant pivot boo xam ne mun na rabattre pour son pour son milieu de terrain maanaam mooy homme de milieu mu ñëw dóor bu boobaa day bett gol bi ak yooyu dafa doon situation yoo xam ne de jeu yoo xam ne il faut ñu di ko préparer di ko waajal mais équipe du ñëw ci terrain door a wane ne lii laay footballé mm-hmm. da nga koy préparer à l'entraînement di ko préparer di ko préparer ba nga xam boo ñëwee dafay dafay dafay doon lu lu lu yomb ci ci ci yow yaakaar naa contre Guinée équatoriale noonu la ñu war a joué te bañ a yaakaar ni nag dañuy ñëw jaar ci kaw Guinée équatoriale. ndax équipe la comme benn match yombatul match même boo dooree 1-0 boo gagné baax na kon nag ñu xam ne match bi pour gagné ko la mais pour gañee ko nag la koy gagné duñ ko préparer ci biir match bi dañ koy préparer en dehors du match donc en dehors du terrain. mango kon espérons que xëy na suñ digg ak euh, Guinée équatoriale on va faire la différence euh, kon euh, jaajafal ko bu baax Mamadou kase la ñu doon dalal journaliste jàngalekat ci CESTI ancien rédacteur en chef bu yéenekaay bu Soleil monsieur Kassé merci beaucoup. merci beaucoup madame Ngoné.